képp koo xam ne da cee seetantal dara lu mu tuuti tuuti rek maa ngi ñaan yàlla may ko ak mucc képp sax ku fexe rek ba am téere bi moo xam da nga koo moom bu wér ni ki jënd ko mbaa ñu may la ko mbaa nga donn ko mbaa nga amee ko ci defal kenn mu fayee la ko mbaa nga fexe ba bind ko am ko mbaa sax nga àbb ko nu waaye fexee rek ba amee ni téere bi maa ngi ñaan yàlla may ko ak mucc ijaara dañ koy ëpp jëfandikoo ci jëfloo nit fay ko kon nag ku amee téere bi ci kaw defal kenn mu fayee la ko mbaa boog nga bindloo ko keneen fay ko yooyu yëpp rek ku fexe rek ba am téere bi yàlla na ko yàlla may ak mucc faawu faawu ci darajey yonante bi mu dellu ñaan yonante bi yàlla dolli ko teraanga ak jàmm ak mboolem ay mbokkam ak i saxaabaam ak képp koo xam ne mu ngi jéem a roy ci ñoom di xeñtu seen yoon abwaabuhu ay buntam talaatatun ñett la wa qablaha nekk na seenu njëkk shay'un dara muqaddamu ludduñ jiital faraay na nga sàmmoonteeg kullaha képp ci ñoom awwaluha aji jëkk seen fii zikri baynil xalqi nekk na ci tudd diggante mbindeef yi wa baynil xaqi ak diggante yàlla miy dëgg xaddan ci ak lim wa tafsilan ak ci teqale wa taani ñaareel bi fii zikri rada ilil wara nekk na ci tudd caay caay yi mbindeef yi zahiratan mbir mu ñuy aji feeñ baatinatan ak mbir mu ñuy aji nëbbu xay sutura foofu xam ne def na leen gis taalisuha aj ñetteel seen fii zikri aadaabi nekk na ci tudd ay teggiin maha fadailin ànd ki ngëneel mis na nga ràññeele kullaha képp ci ñoom tantafiha kon nga jariñu téere bi nee na nii laa ko tërale damay njëkk indi muqaddamatun loo xam ne moom laay jiital ci njëlbeenu téere bi te muqaddamatu boobu kat dana yaatu lool dana ci wax lu bare bare door a tàmbali nag def téere bi ñetti bunt buntum njëkk ba nee da ciy waxtaane diggante yàlla ak li yàlla sàkk la tax mu wax loola mooy ki nga xam ne mooy sàkku ngërëmul yàlla lu mu geesu lu bokkut ak yàlla rek mën naa nekkum ñàkk digganteem ak boroomam kon bu dugg njëkk bi da ciy waxtaane li nga xam ne moom la mbindeef yi mën a nekk ab ñàkk diggante jaam beeg boroomam bu leen geesoo rek loolu mën na koo gàllankoor wala lay wax ci bunt bu njëkk bi bunt bu ñaareel bi da ci wax xeeti caay-caay yi nga xam ne doomi aadama dana ko di làmboo yenn yi di fés ñu koy gis yenn yi di làqu te muy caay-caay yoo xam ne day tee jaam bi maneek boroomam buntu ñetteel bi na nga xam ne moo ci mujj moom da ciy wax xeeti teggiin ak xeeti ngëneel yi nga xam ne su jaam bi góorgóorloo ba set ci mboolem xeeti caay-caay yi muy deseetu luy tee mu maneek boroomam mu daal di mën a nag takkaayoo xeeti teggin yi ak xeeti ngëneel yi nga xam ne mooy tax yàlla boole ko ci jaamam ña nga xam ne ñoom la taamu ci biir ak bitte mu ne kon nag na nga fexe ba ràññeele muqaddamatu bi ràññeele itam ñetti bunt yi nga xam ne noonu laa leen tegalee hada lii nag awaanul insiraafi moo di waxtu walbatiku wa lil maraami jëm ca càkkutéef la wanatlubu te danañu sàkku alxaw na dimbal la minallaahi mu tukkee ci yàlla asalaam yi aj mucc ci ayub kon nag nee na maa ngi jublu ci dëgg-dëgg yi taalif yi ndax ndax li ma weesu lépp tarjumaani téere bi rekk la ma ciy xamle téere bi di ci ñaan saa boroom kon kon nag nee na maa ngi wëlbatiku jëm nag ci dëgg-dëgg taalif bi te sàkku ci yàlla mi nga xam ne moo amee ndimbal mu may nu ndimbalam naqoolu danañ wax baadal ibtidaa ci gannaaw tàmbalee bil basmalati ci bismillahi irrahmani irrahim walhamdi ak sant yàlla wassalaati ak julli ci yonante bi tumal xawqalati topp laa xawla wala quwata noo ngi wax ne muqaddamatun lii lu ñu jiital la mbaa boog muqaddimatun loo ci jàng mu baax gannaaw ba nu tàmbalee bismillahi irrahmani irrahim sant yàlla teg ca julli ci yonante bi dañ talu it ba seen wecc ci lépp luy pexe kàttan delloo ko yàlla xam ne moo ko moom kon nag ca dëgg-dëgg noo ngi wax ne lii day mooy buntu téere bi muqadda matun mbaa muqaddi matun al ilmu xam-xam yan xas yi mu dana séddalikoo indal ulama yi fooy xam ña li zahirin jëm ci aji feeñ wa baatinin ak aji nëbbu kutima joj nëbbeef na ko sirran mbir mu muy mbóot zahiruhu zahiram al muslihu mooy aji yewinal jë lil amaali ñeel jëf ya wal baatinu baatin ba maanaam aji nëbbu ja al muslihu mooy aji yewinal lil axwaali ñeel mbir ya xam-xam boroom xam-xam yi dañ koy def ñaari xaaj xaaj bu fés bu feeñ ak bu làqu bi nga xam ne moo fés te feeñ mooy bi nga xam ne moo lay jàngal ni ngay yéwénale jëfi zahir yi niki boo doon julli lu aju ci julli ga ak boo doon woor lu aju ca koor ga ak natt asaka ak mboolem jëfi zahir yi xam-xamu biir bi nag mooy bi nga xam ne moo lay jàngal ni ngay defare sa mbiri biir ba ni nga sàmme sa bitti sa biir itam nga sàmme ko noona niki moom moo lay xamal melo yi yàlla taamu ci xol melowoo ko niki ragal ak yaakaar ak dëddu ak wakiilu yépp melo yi ñu taamu la ak melo ya nga xam ne yàlla taamuwu ko niki rëy ak jëf te yàlla taxut ak naw sa bopp wala añaane kenn wala jekki-jekki bañ kenn te yàlla taxut xam-xam bi lay jàngal mbiri xol ya ci yàlla taamu mu nekk ca ak yàlla taamuwul bëggul mu nekk ca loolu mooy xam-xamu baatin bi fa awwalun aji jëkk doon yi wooyeef na ko bismi tafaquhin ci turu fiq waxtaani ñaareel bi wooyi wattoof na ko anhum jële ci ñoom bi tasawufin ci turu tasawuf xam-xam bi fees di la xamal ni nga yéwénale jëf yi ci zahir moom la ñuy wooyee fiq daañu ko wooye ba tey sharia xam-xamu ñaareel bi nga xam ne moo lay jàngal ni nga yéwénale mbiri biir yi nin ko misaale ci xol bi xam-xam boobu moo tudd tasawuf tekk na nag moo tolloog al ihsaan tumata taqdimul fata topp jiitalug cam sa al fiqha fiq xalaa tasawufin ci tasawuf wujjoobu hoo waram nga xadim jalaa feeñ na faaw nag fiq lañ war a jiital door caa teg tasawuf ndax tasawuf dafa laaj jëxër ak sa bakkan ak sa bànneex ak seytaane ak àdduna te jihaad googu faaw yaa ngi koy teg rek ci kaw shariha maanaam ci jëfe li nga xam ne moom la shariha digle loolu moo tax tasawuf mënta am te fiq amut kon nag fiq la ñuy jiital door caa teg tasawuf waaye itam nag fiq bi dafa yaatu lool lool ba bari àttayiñ cee wax yoo xam ne mën ngaa dund ba génn àdduna te du xew mukk mukk mukk yi mel noonu sànq ak dund rek la boo xasee xam lu ci fiq li nga xamee ne doy na la yóbbal rek mën nga caa dal teg tasawuf tasawuf it la ci ëpp ak jëfe rek lay doon foo toll bàyyi xel sa boroom gannaaw ba nga xàmmee lépp loo xam ne taamuwu ko ci sa biir ak bitti foo toll di ko moytu gannaaw ba nga xamee la mu taamu ci sa biir ak sa bitti foo toll di ko jéem xam-xam bu yaatu la moom it waaye jaruta topp rek di wéy di wéy jëfe ga rek moo ci ëpp solo fama nintama ku askanu ilaa ixlaalil awwali jëm ci xët aji jëkk ja halaka mu alku fi duniyaa ci àdduna bi xukumil xulamaa yi ci àtteb way xam ña bu mën yëkkun ku nekk nag dal ixlaali di boroomu xët mooy ñàkk toppatoo ñàkk matale bittaani ci aj ñaareel ja yaxlik kon mu alku xadan ci ëllëg bi xukumi dil jalaali ci àtteb boroom màgg ga ñàkk sàmm fiq day indi alkane yi àdduna ñàkk sàmm tasawuf di indi alkane yi alaxira li tax ñàkk sàmm rëddu shariha di indi alkane ci àdduna mooy bu fekkee ne jaasi lislaam mi ngi dox boroom xam-xam yi toppatoo shariha faawu ñu daldi awale kooka ci àtteeb shariha bu ñu ko waree rey sax rey ko te daan yàlla du leen ca fekk mel ne bu fekkee dane moom jullit la waaye àgg na ci boroomam ba sañ naa def la yàlla aaye sañ naa bàyyi la yàlla digle ñiy àtte ci shariha bu fekkee dañuy doxal lislaam faaw ñu teg ko ci yoon woo fi saasay saasa nga xam ne kon buñ ko waree rey rey ko buñ ko waree yar yar ko nga xam ne kon ñàkk sàmmonteeg fiq muy shariha moom day indi alkande fii ci àdduna ñàkk sàmm nag tasawuf maanaam koo xam ne fexe ne ba li ñuy digle ci zahir moom mi ngi koy def la ñuy tere itam ma ngi koy jéem a bàyyi waaye nag defu defut ngir yàllay kese léegi ma ngay def la ñuy digle waaye amu ci ak sellal yàllay kese taxut mbaa ma ngay bàyyi la ñuy tere waaye yàllay kese taxut loolu ak ñàkk sellal la te ku mel noonu yàlla ci boppam bu ëllëgee ci àllaaxira mooy àtte ak alkoom yàlla da koy daal di xamal ne ko la ma soxla woon sama jaam daal mooy def te sama jëm rekk tax danga koo defutoon man nag lu ñu ma boolee keneen ba leneen ma bàyyeeg keneen kookee mbaa leneen loolee man duma nangoo bokk ak kenn kenn kenn ndax duma moroomum kenn kenn nga xam ne kon ni ki mu ñëwee ci addis xaalal imaamu ahmad xan abi hurayrata xan nabii sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yarwihi xan illahi azza wa jal annahu qaal ana xayru shurakai faman xamila xamalan ashraka fihi gayri fa ana bari'un minhu wa huwa lilladi ashrak sunu boroom ne man dey maa fi gën a neex a bokkal ku jëf-jëf boole ma ko keneen rek bàyyi naa ko kooka ak benen hadith قال الإمام أحمد عن أبي سعيد وكان من الصحابة أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إذا جمع الله الأولين والآخرين ليوم لا ريب فيه نادى مناد من كان أشرك من كان أشرك في عمل عمله لله أحدا فليطلب ثوابه من عند غير الله فإن الله أغنى الشركاء عن الشرك ne bu ëllëgee ba yàlla boole ñu jëkk ak ñu mujj ñu tase ci benn béréb dana am ku jébtaane ci kaw ne képp ku mës a jëf-jëf te yàlla yi kese taxut na dem ca kook ya mu doon booleeg yàlla kooko fay ko tuyaaba ndax yàlla moom du nangoo bokk ak kenn dara dara luñ jëf ngir moom rek lay fay waaye luñ ko booleeg keneen mu bàyyee kooka fa waajibun kon aji war la xalal xibaadi ci jaam ñi turan boole seen jam xuxumaa seenu boole ñoom ñaar li koy yenaaloo ngir ñu am al ajra yool ba ndegam nag sàmmoonteeg shariha muy fiq kese yam ci doyut mënistu sàmm itam tasawuf te fekkul nga boole ca fiq kon nee na faaw rek jaam bu nekk daa war a góorgóorlu ba boole yaar yëpp boole yaar yëpp mooy li shariha rëdd nga taxaw temm ci matal ko ba noppi nag ci sa xol ci sa digganteeg sa boroom lépp looy wax ak lépp looy jëf ak lépp looy jàpp ak lépp looy bàyyi yàlla kese tax te nga sàmm ca teggin ya nga xam ne xam nga ne moo ca yell sa digganteeg sa boroom loolu boo ko defee rek boole nga fiq ak tasawuf wa man tafaqaha koo xam ne fiqu na bila tasawufin ci lu tasawuf fa du tafasuqin kon boroomu caay-caay la sarihin guy aji wér fa arif na nga xam koo xam ne góorgóorlu na nag ba jëfee fiq maanaam attey shariha yi waaye nag seelulu digganteem ak boroomam dañuy jàpp ne kàccoor la ci digganteem ak boroomam de bu dee ci kaw suuf moom dul mën a wax kàccoor la ndax nun xamunu biir biir dañ koy bàyyi yàlla bit rek la ñuy àtte te gis nañ ni moom sàmm na fiq muy shariha kon nag kon nag ñàkk sàmm tasawuf ga digganteem ak boroomam la kàccoor la waaye nag ci digganteem ak boroomam wa man yakun ku nekk bi xaq si za ci safaanub kii fa innahu naka moom amaaloo jëngal nañu sha'nahu mbiram ila tazanduqin jëm ci ak sindiixu sindiiq mooy koo xam ne day feeñal lislaam di nëbb kéefar ci biir kuy wax ne yàlla moom xol rekk la am soxla ci nit te man te man sama xol set na sama digganteeg sama boroom jag na ba noppi daal di wàcc nag àttey fiq yi li yàlla digle du ko def li yàlla tere day waaxu song di ko def wane ne xol bu set rek la yàlla soxla te am naa ko ba noppi loolu mooy sàmm tasawuf bàyyi fiq loolu nag moom dañuy jàpp ne ku mel noonu day woote rek noonu lislaam ci bitti waaye ca biir moom ak kéefër la nëbbu kooku nag bu dee jamono yi jees yi lislaam di dox faaw ñu awale ko ci yoon wa def ca la ca war bu ca rey waree sax ñu rey ko wa man jamaxa ku boole li fiqhin ñeel fiq wa tasawufin ak tasawuf fa huwa moom ëllës yi mooy ka nga xam ne xuqa gayeleef na lëxoo ñeel ko añ yu tabaxa bu dee fi ko topp liñ ko waxe woon léegi ku fexe ba boole yaar yépp fiq ak tasawuf boole gi nag mooy lu chari xarëdd rek nga jéema sàmmonteeg moom bañ caa xëtt dara dara ba noppi nag sa digganteeg sa boroom ngay jéem lépp looy wax ak lépp looy jëf ak lépp looy jàpp ak lépp looy bàyyi yàlla rek tax te nga sàmm ca tegginee ci yàlla loolu mooy boole fiq ak tasawuf ku ko def nag mooy ku mat kaa mat ka nga xamee ne moo doy royteef axraja génne na dal xukuma bile àtte al imaamu ilimaan ba maalikun te mooy maalik raximahu yàlla na ko yërëm radiya te yàlla na gërëmit an walis ko al maaliku aji moom ja ni ñu teqalee wax ku jàpp fiq rek bàyyi tasawuf lay mbiram wax ku jàpp tasawuf bàyyi fiq lay mbiram wax ku boole yaar yépp lay mbiram teqale boobu nee na al imaamu malik moo ko waxoon daa waxoon ne man tasawafa walam yatafaqah faqad tazandaqa wa man tafaqaha walam yatasawaf faqad tafassaqa wa man jamaha baynahuma faqad tahaqqaqa wal taalaman na nga xam bi anna ilman ci naka xam-xam wa amalan ak jëf huma ñoom ñaar wasilata sahaadati ñoo di ñaari jottalikukaayu texe wasilatu mooy moyen rek ajal waaw faj taxit kon na nga farlu fihima ci ñoom ñaar wa fit tasfiyati ak ci sellal ga min kulli aafatin ci bépp gàkk wa fit tanqiyati ak ci setal ga gannaaw bi sunu boroom dogalee ne ñii dañuy texe ñii dañuy texee di teewul nag mu sàkk ay sabab yoo xam ne ku bëgg a texe da nga cay jaar sàkku ca ak texe bàyyi ko moom nag mu jëfe coobareem mu def nag moom yàlla xam ak jëfe ñuy yoonu texe bu ñu xam ak jëfe nag mooy xam lu baax te di ko def ngir yàlla xam safaan ba te di ko moytu ngir yàlla loolu rekk lañ jublu ci xam ak jëfe foo dégg ñu tudd ko mu ne nag kon yaar yi moom ndegam ci la ñuy amee texe tey ëllëg na nga ci farlu bu baax a baax te fexe ba dara lu leen di yàq lu leen di teemat lu leen di sikkal bañ caa am bu ñu nee nag na fexe ba jëfam sell tegu ci xam-xam bu sell mooy na fexe ba muy xam-xam muy jëf mu yéene ca ngërëmul yàlla kese ba noppi itam gannaaw bu jëfee jëf ja bañ di ko nettali bañ itam naw boppam yett yi moom jëf te yàlla taxut wala yàllaa tax waaye gannaaw ba da ko nettali ngir bëgg ko ca tagg mbaa ku ko ca naw mbaa boog jëf ji tax mu naw boppam yooyu yëpp day yàq jëf kon dalaa dugg ci jenn jëf dañ njëkk ko xool ba xam lu yàlla bëgg la am déet bu dee loo xam ne lu yàlla bëggul la mu daal di koy sori te tuub jëm ko ci am xelam jëmoon bu dee lu yàlla bëgg la mu fexe ba ba nga koy tàmbali yàlla kese tax te it mu ca noona ba moom cee noppi yàlla kese tax bu tàmbalee jëf ji nag te yàlla kese tax ba mu nekkee ba ca biir am xalaati bëgg ca ku ko sant bëgg ca koo ca tagg kon lu ko bëgg yàq mu ngi dugg si loolu nag bu fekkee jéemu ko naqarlu ci xolam loola day daal di yàq jëf ja su fekkee nag loolee naqari na ko ci xolam daa mënta génne loolu sànni rek ne ko xërul fële sànni waaye moom neexu ko loola kon du yàq dara ca jëf ja incha allah wa saxihan na nga wérale kilayhima képp ci ñoom ñaar bi sidqi ci ak dëggu wal ixlaas akuk sellal tabu faral kon nga tuufu bi ixtisaasi ci ngëneel mooy ixtisaas bi fi ak jagoo waaye mën nga ne ngëneel wa bi tibaaxi sunnatil muxtaari ak ci topp sunus kañu tànn salla yal na dolli tedd nga wa sallama tuddali woonu xalihi ci moom albaari aji bind ji wa alihi ak ñoñam wa saxbi ak ay saxaabaam wa man ak képp koo xam ne tabixa topp na asaarahum seeni jeexit mbaa seeni saawo saawo mooy fañ awoon min muqtadan ci ku ñu roy wa muttabiin ak aji topp muy xam-xam muy jëf moom am na yaar yoo xam ne waxoon nañ ne mooy seen balaas benn bi mooy dëppoonteeg sunna na yonante bi jottalee jële ca boroomam na fexe ba xam-xamam ak jëfam dëppoog loola bañ koo wàcc ci genn anam ba ci des nag mooy sellal yàlla kese kese tax mu def loolee saa yoo xam ne jëf ji boole na yaar dëppoog sunna ni ko ku baax ka indee jaam bi def ko ngir yàlla yi kese kese rek yàlla daal nangu jëf jooja mu ne kon nag del góor góorlu ci sa xam-xam ak sa jëf nga ànd caaku dëggu te lépp tegu ci kaw sunna te it nga ànd caag sellal lépp lépp yàlla yi kese kese tax dara bañ caa rax mu ñaan yàlla nag bu dool yonente bi teraanga ak jàmm ak mbokkam yaag saxaabaam yaag képp koo xam ne yaa ngi jéem a xeñtu fañ awoon moo xam kooko day kilifa gu ñu roy ci moom moo xam da di kuy roy ci kilifa rek àggagul ca àgguwaay ba ñoom ñëpp rek yal na yàlla bool leen ci teraanga jëg jàmm ji wakkul na nga nekk mulaasiman di aji taqoo limaa ñeel la nga xam ne xadd saqu la diis na xale ko ci yow min huma ci ñoom ñaar wanaa ite nga soreek alkasala taayeel lépp loo gis nag ci wàllu xam-xam baa jëf ji yow mu diis ci yow sa bakkan di ko bañ say boo gaca sa bakkan bu baax a baax te xam ne yow moo gën ci yow ndax bakkan moom loo gis mu sawar ca li ci ëpp ñàkkut lu mu ciy daba muy lu ko neex muy bànneexam waaye loo gis rek mu di ko fénati di ko diis loo ko bañ rek ci xam-xam ba jëf ji yiw say boo xam ne loolee mooy la gën ca moom yoo dum na nga sax xalal lëf yi ci la nga xam ne taf butu da nga bëgg sax xale yi ci moom law jaa aka doonte dikkaloon na la almawtu dee kama xadd sabatoo naka ñu saxe bu fekkee nag dafa am yaari jëf yoo xam ne lu ci nekk jëf ju yiw la jëf ju baax la te xamoo nag jan moo ci gën ci yow kon am na ñaari seetuwaay yoo xam ne mën nga caa xàmmee ba ca gën ci yow benn bi mooy la ca gën a diis ci yow loo ci xam ne moom la sa bakkan gën a bañ di ko diis loo ko fénati say ba dimbali ko ca loola ndax bakkan moom li ci ëpp rek loo gis mu sawar ca ñàkkut lu tax mu sawar ca loo xam ne boo ko toppee muy sa ngaañ ba ca des nag mooy nga seet ba xam bu fekkoon ne dee dafa teew dee ñu ñuy fi sa kanam yaari jëf yooyee ana boo ciy jëf bëgg dee fekk la ca yaari jëf ya boo ci gën a taamu dee fekk la ca rek xamal ne boobaa gën ci yow kon ñaari seetukaay ya nga yoo xam ne mën nga cee seete jëf yu baax yi ba xam ban moo ca gën ci yow in taxtamil ndeem da nga yenu muy ne na nga muñ fii zamanin ci jamono xalilin ju néew mashaqatan coona li day ni ñeel yi la yaar yaa xalili yoo sama xarit taslam kon nga mucc wa tax wi te kon nga làq baadaxoo ci gannaawam tanaxuman xéewlu dëhëran jamono tawilan ju yàgg fii jinaani di sama yi ci àjjinay borom asamaan ne xam-xam ak jëfe moom mënta ñàkk ab coono waaye da nga seetlu ne dund gi dafa gàtt lool lool te boo muñee rek yanu coono xam-xam ak jëf ji yiw lu metti metti nga muñ léegi sa dund jeex nga wàcc ab liggéey tàmbali xéewlu xéewal goo xam ne amut fenn fenn fu muy yem buñ bëggee misaal ëllëg na mu yàggee ndax moom du jeex dañ koy misaal ci bu yàlla sàkkoon rek mel ni picc mel ni picc dong dong muy fab peppi suuf yi bis bu ne benn pepp mel ni picc dong ak ni fekk suuf yi bare bis bu ne benn pepp rek lay jël ko it peppi suuf yi dana jeex te ëllëg moom du jeex loolu nag kon nag dundug doomi aadama ni mu gàtte daa war a jéem rek farlu ci lu baax